waaw mouvement bu Thérèse Diouf fay jiite bu COJER bi ba tax ñuy xeexoo seen biir wax dëgg na yàlla maa ngi koy ñaawlu bu baax waaw dama koy ñaawlu ndax vraiment su fekkee ñoom ñëpp dañoo respecté sénégalais yi dañu war a moytu di fi indi ay anomalie di fi indi loo xam ne day indi coow indi ay problème di tere nit ñi seen va et war dem ci seen i liggéey ak yooyu ndax ay problème mu mouvement dëgg-dëgg bi dëgg ñu ngi ci te campagne jotagul mu mel ni léegi ñëpp a ngi en campagne te loolu vraiment dafa baaxul ci réew yaa de dafa am jamono yoo xam ne jamonoy liggéey la dañu war a liggéey te bàyyi politique bi ba ñu ne ubbi nañu campagne su ko defee ku nekk jóg li nga war a wax nga wax ko ci yar wax ko ci teey wax ko ci teggin waaye nag buñ demee di di di xiiroo di ŋaayoo di xeexoo man loolu dama ko gis rek mooy problème mu ay intérêt la problème mu intérêt yooyu nag conflit d'intérêt yooyu moom moo waral coow li te loolu moom mooy indi xeexoo yi vraiment c'est pas normal man daal loolu dama koy ñaawlu bu baax a wa maa ngi koy ñaawlu. histoire politique moom xex yag na ci mais nak xex deful dudul yak discipline dafa bax ci lo gis donc comme discipline, wuñu ah dina porter préjudice sen sen sen sen sen njiit denga ndax ni mu koy porter préjudice pouvoir denga. bo ci nekkee ba indiscipline sosu ci denga nga bu boobaa décadence moom mooy am moom mooy lan chute moy nek waaw actuellement dépassé nañu affaire histoire affaire xeex ku ci nek euh, da nga wara am conscience de nga xam violence violence wul dara lu bax de nga li avancé dëkk bi gor lu ku nek focalisé wu ci li ngay def jéem a jëm kanam de nga wéru ci politique nak fim nek mom la nit ñi di def affaire parasite la rek waaw ñu ci bare yoon lañ ci wut. jaral na len nak lu ne waaw mais lepp loy def deng, ci da nga ne da ngay def pour sa deuk dafa dang ci wara deggu lol nak mo manke ci sunu politicien lolo xew actuellement deng mentalité yi na lol lol ndax lan appât du gain beug nga am deng, yek ci say kaw morom de nga war de nga fen deng de nga jaxasse lepp pour avancer sen histoire bobu nak guerre de positionnement la foog mu demee noonu gâteau bi teg nañ ko foog ku nekk mos ci waaw ku nekk nag da ngay bëgg mos lu ëpp looloo tax xeex di am. bon les jeunes de Cogère moom franchement seen mouvement boobu bon début bi niñ déparé woon baax na mais du moment que dem na ba am ay coow te xam nga liggéey at coow àndut te ki ñuy jàppale aussi liggéey la woote. man je ne suis pas APR mais comme liggéey lay woté té ñom mom lañ andal pour jappalé ko franchement rafetluwuma dal xex bo mom rafet luuma ko quoi franchement. comme si rew lañ nek bo xamantene dafa am yoon franchement bu fekkente jalgati am mo xam da ngay jappalé président mo xam jàppale ko at ku munti don té rewum yoon la at rewum droit franchement bu fekkente ni dañoo jalgati loolu yoon mom mo xam ndax jalgati nañ wala jalgatuñ donc il faut que ñu tek len ci yoon parce que jappalé nit at xex andout surtout nit ko xamné day woote émergence ngéné dang koy jappalé bëgg di xeex di xulo bon franchement luñu joté ak luñu joté wul xawma mais comme dëkku yoon la nañ bay yoon def liggéeyam noonu laa loo gissé mom franchement ko no yu yu 10 a diis si moom lay doon parce que réew mi fim mu ni jeune jeunes yi ñoo yor mais fim mu ni bo gissé jeune u affaire yi di jappanté day melni comme jeune u PDS yi bi ñuy jàppante dañu né ñi liggéey ñu ay xuloog xex lañ fi nekkee dañ leen di jéppi au fur et à mesure. jéppi bobu nak ay point la yu bari yo xamanteni euh euh yu am solo la ay point yu am solo la bon xeex be xuloo bi moom franchement arrangé wul Macky Sall ku koy jappalé na moytu lolu parce que lolu day tax ñu jéppi len te bu len leen dañuy globaliser euh, le mouvement présidentiel euh, les jeunes et tout ça franchement man dal rafetlu wu ma loolu quoi te jappalé wuñu président parce que kenn du ne maa ngi jàppale nit ñu lay dégg ci ay coow ay xuloo franchement du lu ma rafetlu man moom sama walu bop quoi waaw loolu moom ni ñu ko jàngatee moom mooy xam nga dëkk bi boo xoolee boo xool dëkk bi dafa am loi loi bi mooy euh, président yi fi jot a jaar ñëpp dafa am ci lu ñu sukkandiku mooy euh, wane un bon exemple nit ñi fi nekk nag ñoom ñoo fi bëgg nekk di xiiroo di ŋaayoo ndax lan ay ay nit yoo xamante ne saa waay jaruñu ko parce que soo xoolee boo xool depuis ñu am suñu indépendance ba léegi politiciens yi dañuy dikk ay affaires yoo xamante ne duñu ko jox dégg nga mu dem ba benn moment boo xamante ne nit ñi commencé ko xam parce que boo xoolee boo xool au niveau du Sénégal léegi nit ñi xeexatuñu xulawutuñu carte la ñuy folle carte la moom moom la ñuy moom la ñuy falee kon loolu war na mën a yee ñu bëri ba tax ni fu ñu toll nii nit ku nekk sa mature ba toog sa kër yaa ngi dégg lii am nag nga koy dégg di ko bañ a jëfee ci tali bi parce que tali bi boo ko fi jëfee yoon day tegu sa kaw yaa ngi dégg te am na ay nit yoo xamante ne jaruñu ko li tax jaruñu ko mooy duñ la yóbbu fenn da amul lenn loo xamante ne ñoom dañ la ko apporter yaa ngi dégg loolu mooy yëfu nit te politique bi ñu mu ne Sénégal au niveau de Sénégal politique bi dafa salté parce que politique bu njëkkoon sunu maam yeeg sunu papa yi di ñu ko daan def mais li ñu xamoon mooy ay tey dabaa ak affaire yu mel noonu sensibiliser jeunes yi ñun def ay mais wax ku nekk saxaat yooyu amatul léegi léegi politiciens yi di li ñu xewal mooy looyee benn kër li ñu war a dem taali kër diw dañu war a dem lakki kër diw di war a dem defi nangam ak nangam yooyu doxul Sénégal fekkee dañu bëgg Sénégal mu jëm mu mu jëm kanam na gaay woote jàmm jàmm nag ci la lépp xaj jàmm kuko wote wul fi at fañ jëm doko fi am te ku yeboo nak wote fi jam ndax jam ci bopam moy njëkk te moy mujj man da lool la xam te lool la am lu wax waaw fokk mu demee nonu ndax loi bi deng pour ñëpp la amul ne ñun dañu fété ci nguur mom motax deng dañu war def lu nu neex waaw ku def lu warul yoon warna teggu sa kaw ñu daan la daan yin la wara daan waaw

nga àdduna dëgg-dëgg yow xam fooy teg sa tànk léeg nit ki da ngay xam fan ngay teg sa tànk te surtout affaire njiitu réew ñun ñëpp ñoo ànd fal ko gannaaw bañ ko àndee fal ko nag jox ko doole yi mu am yëpp nag mooy ngay moytu lay tax ngay féewal ak moom lay tax ngay réer ak moom parce que loolu mun naa jur li dal kii nga xam ne tëdd na kaso tey ba tëdd première guddem waaw loolu moom loolu moo ko waral. waaw mais loolu moom saa yi ñoom ñoo ñoom ñoo xam rek moom la mu def at maanaam ña nga xamante ne ñoom ñooy at dëgg ñoom lañ gis ne moom la def ba ñoom ñu tëj ko ah <laughs> euh, nañ jéem a xool rek ñoom seen biir waaye nag euh, lii mooy euh, ci laax bi laa bokk ci laay lek après ci laay pare ci laay xëpp suuf loolu loolu moom ci politique loolu loolu yàgg nañ ko gis yaa ngi dem lu baax nañ jéem a man daal li ma la jéem a wax rek mooy sama wax ju njëkk ak sama wax fexe wane discipline yaa ngi dégg mooy njëkk mooy mujj jigéen ak góor yëpp ci boppam bañ a xam ne ñu ñëpp dëkk bi ñu ñëpp ko bokk ñoo bokk ndey bay bàyyi lu ñaaw xaju fi yaa ngi dégg am na loo xam ne boo ko fi defee fii balaa suba day siiw te day xam te fi ñu toll nii fi ñu toll kenn a yàqal kenn ñëpp war a mën tegu ci yoonu saatal mu saxi man daal loolu laa gis wasalaam waaw xam nga Macky Sall wax dëgg na yàlla mun ñu ko yàqal dara parce que li fal président ah quatorze régions la te quatorze régions yooyu gox bu ne président dafa am dara donc du ay ay petit mouvement yooyu ñoo mën a yàqal dara président yooyu ay ay mouvement la mais conflit ay conflit d'intérêt la rek yoo xam ne ku nekk da ngay positionnement ma jiite ma def lii maa def laa mais loolu ñuy def noonu mënuñu yàqal dara président daal parce que ña war a wootee pour président bi falu ñu ngi ci seen biir kër c'est des sénégalais lambda yoo xam ne ñu ngi déglu di xool moom lan lay def té vraiment ñu ngi rafetlu ay jëfum dal Macky Sall mesure yi mu mom, koku mom moom mom moom moom la concerné mais bi njëkk bi moy moom ci bopam na woote discipline discipline bi moy na am ay sanction yo xamantene ñom lay tek ñi nga xamantene ñom ñoom ñoo nekk ci bop responsabilité yi yi mu yi mu joxé ku ko ku ko ku ko ya nga ci bop moom ci bopam mu baña am xajak ak seen jël la tegg la jël fa keneen tek fa mu baña am ay affaire yo xamantene tay ji fi tay am nit ñi di ko gis te do am benn sanction bo xamantene dana jëm ci ñi nga xamantene tay ñi ñom ñoo waral ciow lolu yàgg nañ fi gis ay coow yoo xamante ne foofu lay jóge mais finalement fi mujj mooy de waa ji day gën a am doole te ñu bëri bëri ni bëri ni boole di leen tëj ci kaso beeg yooyu yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp amul benn rendement moom ci boppam moo war a jël ay mesure am parce que moom ci boppam moom moom parti bi malgré que am na ñu ko bokkal waaye am na ay sanction yoo xamante war na ko mën a jël woote congrès ne parti bi lii at lii lii moom mooy xew ku def lii lii ngay am ku deful lii lii at ngam ñëpp respecté euh, yooyu ñu jël ko bind ko def ko ci ay ku ko deful ñu génn la papier yooyu la ko wa jàmm wa salaam man daal waa jaajëf waaw jaajëf waaw